kasumay bu jikaane sama gaa yi nangeen def na mën naa leen trop j'espère que yaa ngeen ci jàmm au moins gis ngeen toog naa sans pour autant mu dugal vidéo damaa feebaroon loolu moo tax mais incha allah lépp mu ngi ci jàmm instant bi nii comme dinañ mën a continuer suñu cours guitare yi pour yéen ngeen xamante ne ay débutant ngeen. su ngeen bàyyi xel ci dernier vidéo bi ñu mujjee def nii. dama leen ne woon dama leen di jox huit accords fondamentaux yi yi nga xamante ne débutant yéen di ngeen ko soxla pour ngeen commencer jouer guitare. accords yooyu noonu fondamentaux yooyu noonu amoon nañ ci huit accords ma fàttelu ko mooy do majeur après ñu am ré majeur ré mineur mi majeur mi mineur sol la majeur ak la mineur donc huit accords base yooyu lañu am après ci beneen vidéo ma jox leen ci d'abord quatre yu nga xamante ne jot nañ ko jàng bu fekkee yaa ngi doog a ñëw ci chaîne bi mun nga dem si sama dernière vidéo bu ma dugal di nga ko fekk vidéo boobu noonu donc ci huit accords fondamentaux njëkkoon nañ jël quatre d'abord mu nekkoon do bi la mineur sol majeur ak mi mineur donc ñeent accords yooyu jotoon nañ ko jël ba pare dañuy continuer tey ñu ñëw jëlaat yeneen quatre accords yi pour ñu mun a boucler huit accords fondamentaux yi ba nga xamante ni yeneen cours yi si des booba dañu jël ay son et musique woy Sénégal sénégalais yi nga xamante ne woy nañ ko fii nii pour ñu jox leen ko pour ngeen ci mun a exercer wu ok soo leen paree rek et tekkee donc pour jouer la majeure bi dañuy commencer d'abord ci suñu première doigt bi ñu ñëw teg ko si quatrième corde deuxième cage. ñu jël deuxième doigt bi ñaareel bant kii euh, suñu kii bi baaraam bi ñëw teg ko ci troisième corde si deuxième cage ba léegi léegi bu ci des ñetteel bi maanaam baaraam bii ni ñu ñëw teg ko tamit ci deuxième corde deuxième cage moom mooy tegu nii ci suuf fii nii ok soo leen xoolee ci schéma bi di ngeen ko gis foofu noonu donc soo leen bàyyi xel ñetti baaraam yépp ci même corde bi ci même cage bi lañuy nekk maanaam deuxième cas bi donc particularité la majeure loolu la maanaam balaa mi ngay teg yëpp ci même bi lay nekk mais bu nekk dafay nekk ci beneen corde ok soo ko tegee nii soo joué da ngay commencé ci cinquième bi cinquième corde bi moom mooy nekk corde de la sama premier cours bi waxoon naa leen corde bu nekk na la tudd bu fekkee fàtte nga ko nga delluwaat foofu nga xool nga xool corde bu nekk nga xam naka la tudd dafa baax pour. lépp nga xam daal say cordes tam nu mu kii quoi donc ci cinquième corde bi la ñuy commencé pour jouer corde de la ñu gratter ko wàccee ko ba ci suuf ñu jéem a def bés suñu loxo yi bu baax bu nga xam ne corde bu baax corde bu nekk dina résonner nu mu waree. donc loolu soo ko tegee ba nga am loolu mooy am nga sa corde accord de la majeur. su paree ci accord de la majeur ñu ñëw dem ci accord de ré majeur. ñu jël premier doigt bi ñëw indi ko teg ko ci troisième corde deuxième cage suñu deuxième doigt bi ñu ñëw teg ko ci première corde deuxième cage maanaam ah, gis nga dañoo dañoo tëb deuxième corde bi ok ñu jël troisième euh, baaraam bi ñëw teg ko ci deuxième corde troisième cage maanaam deuxième corde troisième case benn ñaar ñett ñetteelu case bi foofu lañ koy teg ci ñaareelu corde ñaareelu buum bi ok donc ma reprendre encore suñu premier doigt bi dañ koy ñëw teg si troisième corde deuxième case bu ci topp ñaareel bi ñu ñëw teg ko ci premier corde deuxième case beneen bu ci des ñëw teg ko ci deuxième corde troisième cage ok donc soo gisee nii lay jox c'est c'est un peu bizarre soo tegee sa loxo mais voilà nii la war a doon quoi donc lii daf lay jox accord de ré majeur nga commencé ko jouer moom tamit ci quatrième bi quatrième corde bi parce que quatrième bi encore moom mooy corde de ré te ñu nar a jouer accord de ré majeur exactement ok nga répétewaat ko ci quatrième ba léegi donc boobu noonu soo ko joué pare am nga sa accord de ré majeur su jógee ci accord ré majeur bi ñuy continuer ba léegi ci accord fondamental yi quatre yi ñu dese ñu dem ci ré mineur cette fois si donc ré mineur dañuy soxla encore doy ñu jël suñu première baaraam bi ñëw teg ko ci premier cage première corde maanaam corde bu jiitu bu ci suuf foofu lañ koy teg ci première case bi gis nga ñu jël deuxième doigt bu ci des ñëw teg ko ci troisième cage non excusez-moi troisième corde deuxième cage ok troisième corde deuxième cage ñu jël ñetteel baaraam bu ci des ñëw teg ko ci troisième cage deuxième corde ok donc daf ñuy jox li troisième case deuxième corde soo leen compter bu leen fàtte ci suuf ngeen di commencer compter pour yéeg ci kaw ok donc corde bu nekk ci suuf premier corde deuxième troisième quatrième cinquième sixième corde foofu la ñuy commencer compter pour ngeen bañ a jaxasoo daal mu reprendre encore soo leen joué ré mineur bi sa première baaraam bi da nga koy indi ci première corde première cage nga teg ko mu nekk nii deuxième baaraam bi génn ko ci troisième corde deuxième cage moo nekk ni ñetteel bi ñetteel baaraam bi nga ñëw teg ko ci euh, nga ñëw teg ko ci deuxième corde troisième cage loolu soo ko plaqué da jox tam accord de ré mineur soo koy joué tamit moom ak ré ma joué tam la parce que seen tonique bi c' est la note de ré te note de ré fii lu koy correspondre mooy corde ré bi mooy quatrième corde bi donc foofu ngay commencé joué tamit nga gratter nga bës bu baax nga joué encore nga commencé wàcc ci bi nga joué na nga gratter nga wàcc. suñ paree ci euh, troisième accord bu ñu joxe jël tey ñu jeexalee ci euh, accord de mi majeur ok donc mi majeur soo leen fàttali ko mi mineur amoon na ñu ko joxe foofu tamit ñoom ñaatam tam amuñu tam différence bu bëri donc mi majeur ku nga jël ko premier doigt bi ba léegi ñoo teg ko ci troisième corde première cage ok nga jël bu ci topp nga ñëw teg ko ci cinquième corde deuxième cage bu ci topp ñetteel bi nga ñëw teg ko ci quatrième corde deuxième cage mu nekk ni bu ndaw yi ba léegi boo bokk ci dañ koy éliminer ok ma bamtu ko encore premier doigt bi dañ koy ñëw teg si troisième corde waaw troisième corde premier cage deuxième doigt bi ñu teg ko ci cinquième corde deuxième cage ñetteel baaraam bi ñu ñoo teg ko ci quatrième corde deuxième cage ok moom tamit ak mi mineur soo leen fàttaloo ko tamit même tonique bi la am mooy la note de mi fii lu koy firndeel mooy. corde de mi sixième corde bi maanaam mooy mi grave bi moom moo koy firndeel donc comme foofu la ñuy commencé ci sixième bi soo leen payee rek soo leen xoolee nga gis benn corde laalu ko benn benn benn baaraam laalu ko donc foofu la ñëw jouer ñu gratter bu mu wàcc ba ci suuf encore ok ñu commencé wàcc ci kaw gratter bu mu wàcc suuf rek. loolu mooy accord de mi majeur quatre derniers yi mu leen jox tey jii nii pour mu motal suñu huit accords fondamentaux yi pour yéen débutants yi donc jeex na tey bu fekkee jàpp ngeen quatre derniers yi ñu jox a def tey jii nii loolu daf leen di permettre si suñu cours yi di ñëw jox leen ay woy yu nga xamante ne ay woy sénégalais yoo xam ne fii suñu artistes yi ñoo ko woy pour ngeen ci mun a exercer wu parce que balaa moo neex dëgg la d'abord nga mun a plaqué accord bu nekk loolu mooy première état bi mais après pour nga gën ko mun a jàng maanaam nga mun ko exercer wu il faut nga ciy jouer woy yu nga xamante ne mun nga ko daal tu vois du genre ay Taïja Boone tu vois wala yeneen woy Youssou Ndour ay Titi tu vois donc bëri nañ fi artistes yu nga xamante ne mun nañ jël seen son ñu ciy exercer wu ci accord ouvert yi nga xamante ne moom la ñu jox donc jàpp loolu. huit accords fondamentaux de base yooyu noonu ngeen soxla bu pour l'instant pour ngeen mën a évoluer ci guitare ok donc voilà fi la ñuy yem ak tey di leen jox dig daje chaque mercredi si sama chaine Tony Solis pour ñu leen jox exercice su bees yi ngeen xamante ne dañ mën a di évoluer ensemble n'oublie pas de t'abonner et je te donne rendez-vous mercredi prochain ici même heure même fréquence et take jaw